salaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi am mbégte bu baax jëmm ji nekk seen kanam di Cànnaar Gueye euh, nekk coordonnateur euh, ci liggéey bu màgg bi nga xamante ne mooy fédération Majmahun Nurayni lëkkale kuréel yi nekk si goxu tund jandeer bi yëpp tàmbalee ka ca sëgal ñëw nooto romb kër mbir toor jandeer ñëw ba bayax ak njar waaye dem ci wàllu wale béer mbaawaan ba kayaar waaye jaar ci wàll wi daara kër Moussa ba cinquante lépp ci tund jandeer kuréel yi fi nekk tënk ci benn gox tënk ci benn buum lépp rek ngi liggéeyal Seexul Xadim jëmm ji nag moo nekk ci kanamu liggéey boobu di ko coordonné lépp rek di ci dabu mbégum sëñ bi waaye ñu ànd ak suñu mbokk taalibe yonte ni saa su nekk rek ñu ngi leen di sant ci seen farlu waaye si seen taxawaay si seen yittewoo jëm ci liggéey bu tedd bi saa su nekk rek ñu ci amal ay yitte yu kawe ngir gën a jëmmal liggéey bi loolu moo sabab ñu yegsi si bis bi nekk bis bu tedd nekk bisub xasida fii si Touba Kër Moussa ñu ànd ak suñuy mbokki taalibe waa Mafatul Bichri ak mbooleem daayira yi fi nekk yëpp ci dundal liggéey bi waaye jaare ko ci xasida yi mboolem waa fédération bi nag ñëw àndandoog ñoom ci liggéey bi ngir feeñal suñu mbégte waaye di ñaan suñu borom gën ñu defal taw tawféex ba ànd bi gën a yàgg lool ñu amaat ci tamit xol bu sedd lool ci bii nii day mel ni mooy ñetteel bi édition waaye dañuy gis at mu nekk rek bu ñëwee at ma ca topp liggéey bi day gën a jëmm loolu gën a fawxa loolu gën a màgg lool loolu lépp nag mën nañ kaa tënk ci yitte ak mooy mbokki taalibe yi ci jëm ci liggéey bi waaye la ci ëpp doole mooy tawfeex gi ngeen sëñ bi mooñ tawfeexal ngir ab liggéeyam kenn ku nekk xam nga ni boo ci nekkee dala kaa sagale rek waaye moom moo ko téyel boppam ko defee ñuy santaat bu baax waaye di leen ndokkale ci bis bi di ñaan ñu yàgg ànde waye lepp luñ ci def ci ak yëngu ak ak dal moy luñu wax luñu jëf luñ fi def lepp rek yàlla na dëppoo ak ngërëm sëñ bi nga xam ne moo tax def ñuy soññeewaat tamit mbolé mbokk talibé yi ci bis yu melni ndax tour wi rek warna tax kenn ku ci nek gën ka bàyyi xel bisub khassida te mourid bi sëñ bi xamal naka ni liggéeyam bi moy khassida yi liggéeyam bi limi mag mag mag samaniya hijajin nga xamante di juróom-ñaari at jëm juroom ñett mu def ko ci all bi ngir liggey waye liggey bobu yeb rek boko tan tank day melni moy khassida yi kon bisub khassida fum am rek war nañ ka joxat yitte war nañ ka gën di bay xel ngir gën ka jëmmal ngir gën ka dundal loolu nak ñu ci santat baax suñu borom ci tawfe gi ñu defal ba ñu fekk ka ànde ka ñu ngi fi and ak mbollem jëwrin yi nga tani ño nekk bi buñ ci tuddé señ Masila sambu wala ku melni señ cheikhuna Kebe and ak ñom señ pap Touba segal ñu leen di wax wa nasru minallah waaye sëñ Ousseynou Kébé Touba Toor ñoom sëñ Abdoulaye Seck Touba Kër Mbir ñoom jëwrin maam làmp ak sëñ Mandooy bi nga xam mu ngi noonuy dellu léegi Touba Bayax buñ tënkee ñoñu rek day doy sëkk ñu yóbbaale ñeneen ñi nga xam tuddu ñu leen waye daal sant nañ baax suñu borom ci tawfeex gi ñu tawfeexal ba ñu uyu si si liggéey bi ndax dafa am liggéey yoonte muy liggéey cheikhul khadim képp ku la ci oo dala ca bëgg dimbali kon nak ñun xam dañ ñu doon bëgg dimbali waye señ bi dimbali nañu bopam ndax am nañ tawfeexu fekk ka ñuy ñaan suñu borom yaaka andé waye sa su nekk rek muy dëppoo ngërëm señ bi di waat baax ci cadeau yi waye di waat baax liggéey bi jërë jëf barke borom Touba laka saraftu wa merci